en moment donné et bàyyi na fi li mu fi bàyyi e euh, discours bi ak jëmm ji li mu wan sénégalais yi mooy euh, wax na ay waxam nit ñi déglu nañu ko et les sénégalais sont passés à autre chose euh, maintenant euh, on a pu décrypter message yu mu wax et li may wax ne tout le temps ñoom politiciens yi ci logique gu réalisation rek la ñu nekk def naa def naa def naa mais nekkuñu jamais ci logique gu performance loolu tam boo bëggee bu ñu duggee ci biir dinaa ci wax euh, dégg na ci biir kàddu yi dellu si na ci nit ñi fi ñàkk seen bakkan mhm. dellu na ci attaque au bus mhm. cocktail molotov mais waxul ñi ñàkk seen bakkan te amul benn suite mhm. amul benn enquête bu ñu ubbi ci loolu dégg nga mu wax sax waxi cocktail molotov et li may reetaandoo ci waxi cocktail molotov ak attaque boobu donte am na ñu ne ne gaañuñu euh, seen ñàkk nañu ci seen bakkan c'est que yëpp sénégalais yi mënul weesu boobaak léegi amul benn enquête boo xam ne ubbi nañu ko ci loolu wala ñu présenter ñu nit ni kii kat moo sànni cocktail molotov bi ci bus bi kon c'est juste pour diir rek dafa am loo xam ne politiciens yi moom lañ ñu tàmmal mooy euh, wax joo xam ne. du jara dóor sa doom et ci kàddu yi nga xam ne moom Macky Sall yëkkati na ko ci fin d'année bi li ñu ci gën a jàpp mooy nit koo xam ne da doon kañ boppam di tagg boppam def naa fi lii def naa fi lii alors que li may wax tout le temps ku ñu jox cinquante mille milliards boo doon golo guy jënd carotte sax war ngaa mun a def record Guinness parce que tout simplement on vous a donné quand cinquante mille milliards mais au finish li sénégalais yi bàyyiwul xel mooy bi muy dem moom Macky daf ñu bàyyil bor bu toll ci quinze mille milliards. li nit ñi bàyyiwul xel mooy jox nañ ko cinquante mille milliards mais moom Macky bi muy dem pauvreté bi dafa gën a yokk. boo bëggee bu ñu duggee ci biir waxtaan bi ma daldi la koy étayel parce que firnde bi ci gën ñu war ko bàyyi xel mooy bourse de sécurité familiale yi non seulement dafa yokk. tolluwaay wi jóge vingt cinq dem trente cinq mais même lim gi dafa jóge ci nangami milliers tolli dolli si yeneeni milliers alors que booy dimbali nit sa objectif mooy mu génn ci pauvreté mais bu fekkee ne da ngay yokk ñi ngay dimbali donc loolu aveu d'échec la. day caractériser la pauvreté beneen kàddu boo xam ne mun nañu ci euh, gën a suux. Mhm. Mhm. mooy euh, cinquante mille milliards la ñu ko jox mais la qualité de vie du sénégalais. Mhm. sa dund. boo jëlee indice IDH. Hmm. te muy natt dundinu doomu aadama. Hmm. mais Sénégal dafa dellu ginnaaw. Hmm. Mauritanie moo ñu gën a baax dund. Cap Vert moo ñu gën a baax dund. et pourtant ñun dañuy fëgg suñu dënd naan ñun la Sénégal. nit nag boo avancé wul da ngay reculer. e je crois que bari na ci loo xam ne jàngat nañu ko ci. Euh, te mën nañu ci dellu siwaat bu fekkee ne am na poñ yu la ci gën a intéressé. dinañ ci ñëwaat incha allah oui moom kon yow xam na buñ la déggee bu baax euh, bilan bi. Euh, dafa euh, négatif. mais xam nga wax naa ko nee naa la ku ñu jox cinquante mille milliards. Mm-hmm. faw nga def. Mm-hmm. mais xam nga def ak def lu efficient. Mm-hmm. dafa am wuute. ndax li mu def mooy li gën. ndax li mu def mooy li gënoon. ndax li mu def mooy li waroon. ndax la mu def tolloo nag la yàqute gi tollu woon. lan mooy logique gu xam nga loolu laa leen doon wax ne lan mooy logique gu performance xam nga tey boo tabax naa cinq hôpitaux te fekk na yow sa soxla trente cinq hôpitaux la mais dese na la trente yoo deful ñun ñi nga xam ne ci secteur privé la ñu jógee suñu lii bopp la ñuy liggéeyal bu ñuy natt dañuy nekk ci logique gu performance maanaam la ñu defagul ak la ñu dese naka la ñu war a liggéeyee pour yegg ca loolu malheureusement ñoom ay politiciens lañu et ci loolu lañ ñu mus a euh, suuxat. 1960 mhm. ak léegi ci loolu rek la ñu nekk. xam nga tey boo ko déggee moom Macky Sall mu ne la waaw courant bi ci àll bi fexe nañu ba mu yegg 61 pour cent dëgg la ci lim bu ko neexee. mais mais am nga ay département yoo xam ne. ñaari commune ñoo ci am courant am nga département lëm boo xam ne benn commune moo ci am courant muy département bu Saraya Saraya centre rek moo am courant Medina Bafé Xosanto Sabodala Bembo et mhm. cetera fenn amu ci courant nga dem département bu Medina Yoro Fula sur onze commune neuf yi amuñu courant di dund nag ci dundug wereyaan boo demee dëkk bu mel ni Kéréwan Kéréwan la commune de Kéréwan bu ñu feebaree dañuy daw dugg biir Gàmbi faju bu ñu wéree dugg si waat biir Sénégal Kéréwan bu fa ta daay amee maanaam bu tàkk-tàkk amee sapeur pompier yu Gàmbi ñooy ñëw fay ko ba noppi delluwaat biir Gàmbi d'accord alors réew moomu lañ lay wax ne réew mi dox na réew moomu lañ lay wax ne réew mi mu ngi ci yoonu dox mm-hmm. donc je il faut ñu waxante dëgg nekkuñu ci benn Sénégal bi ñu ñuy décrire parce que nag Sénégal du Dakar. mais mais d'une part également Bougane est-ce que nekku ñu euh, ci dëkk boo xamante ne tout est prioritaire euh, kenn day ñëw def jóge A dem B keneen su ñëwee jóge B dem C peut-être l'État est une continuité on peut mënuñu motal lépp peut-être ci ci ci dix ans. Euh, Néné dama lay delloo rek ci coow mille milliards yu Covid yi. Ah. avec mille milliards. Ah. Avec mille milliards, je lance le plan, la politique d'accélération de la transformation technologique et économique du Sénégal. et dama ko dama ko bind. Mhm. ci biir livre bi nga gis ko. Ah. ma wax la ne la fexe ba ndox yomb ci village yi douze mille forages yegg ci douze mille villages. soixante milliards la lay dikkee ne la dix mille forage euh, moulin à mille nga fexe ba nit ñi am ko mu améliorer seen dund trente milliards la lay tollool et cetera et cetera bu ci nekk ñu wax la ne xaalis bi fii lañ koy jëlee nii lañ ko ciy defee dama bëgg nga comprendre ne moom laa doon wax sànq li yàqu bari na li war a defar bari na mais il faut ñu am logique priorité ndox mu nit naan. Mhm. ndox mu nit liggéeyee mais loolu priorité la tey jii boo gisee nit ñi bàyyi village yi di daw di ñëw ndakaaru yor ñaari mouchoir taxaw ci tali bi mais parce que mënuñu bay mbayum noor pourquoi parce que nawet ñetti weer dong la ñuy liggéey ci at mi mhm. bu ñu leen defalee ay forage danañ yegg ci ce qu'on appelle la maîtrise de l'eau et képp ku bëgg a xeex ñàkk ci Sénégal yaa ngi koy tàmbalee ci mbay yaa ngi koy tàmbalee ci fexe améliorer. très nit ñi ñuy bayee motoriser ko. Mhm. ci biir livre bi tënk naa nu ñu koy motoriser. Mhm. wax naa ne sax faw ñu dellu. Mhm. ca coopérative yi fi Mamadou ja digle woon. parce que tey bu fekkee ne danga nga bëgg a bay diggante deux hectares jàpp dix hectares loolu fas ab illeer ak daba mënu ko mhm. ñu ne il faut de ay mini tracteurs mini tracteurs yooyu dañ la wax ne dana toll ci dix mille ñu war ko distribuer est-ce que da ngay dem xooli nen ne Aïcha wala maam Ngor muy cultivateur du dimanche comme ni ko nguur gi actuellement di defee nga jox ko ko déedéet ñu ne ci biir coopérative yi la ñuy jaar jox ko coopérative yi ngir mu nekk alalu moomeel boo xam ne ñëpp ñoo ci am wàll duñu ko dox jox ñenn bàyyi ñenn ñi ñu ne waaye kii bay faw mu moom suuf si ñu ne mënoo jox nen ne ay sa suuf bàyyi mam góor donc da ngay fexe suuf si coopérative yi moom ko bu coopérative bi moomee suuf bi du ko mën a jaay du ko mun a sédde tayle ko dong la mën te bu ko taylee mhm. faw góor góorlu ngir fayaat parce que nit ñi pour ñu yegg ci mbay mu leen di jariñ faw ñu mën a soppar ñi mbay mi maanaam la transformation bu ñu ko mënul transformer bu ñu mënul liggéey ci ay quantité ak ay superficie yu yaatu du ñu mun mukk souveraineté alimentaire bi nga xam ne dañu koy séenu ñu mun ci yegg et yooyu yëpp ay xel la ak i xalaat yoo xam ne maam gor ñun dañu sol suñu dàll dugg ci biir réew mi fekki nit ñi ci seeni dëkk waxtaan ak ñoom ñu wax ñu ñu bind dellu si xeltu bind dellu ci ñoom ñu waxaat ñu delluwaat bindaat lañu doon bind ak i boroomi xam-xam quoi parce que man dama jàpp ne euh, liggéey bi dootul jóge ci kaw ñu koy forcer ñi ci suuf mais léegi liggéey bi bërëm ab la maanaam ñi ci suuf faaw ñu wax la seeni soxla nga xam ko xeltu ko fu nekk nga dem fa tàllal leen loxo ñu wax nga dégg